waxtaan wi ci li nga xam ne kon moom mooy troisième point bi ñu war a waxtaanee ñetteelu point bi nag moom mooy euh, ce rapport de l'IGE bi ñu ne dafa épinglé Aminata dem démb moom def na sortie moom euh, mi nga xam ne moo jiite woon ay jamono conseil économique social environnemental euh, parce que li ñu ko épinglé moom moo jëm ci gestion wam kon loolu moom moo tax kon moom mu yëkkati ay kaddu jàpp na ne aujourd'hui li nga xam ne moom la ci tënk moom mooy nañu xooli moom la président la Macky Sall bi ñu ko tuumaalee ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbir affaire Taïwan yi nga xam ne euh, tolloon na ci sept milliards de francs CFA ba accusé ko ci terewul mu samp ndëndam moom kenn mënu ko teree samp ndëndam et que cette page est définitivement tournée digganteem ak président de la République Macky a même appelé ñu def conférence publique boo xamante ne ñu ko fa jiitu di Aminata Touré Aminata Tall plutôt nga xam ne def na fa lu ëpp euh, juróom benn at wala jege ko ki nga xam ne moom Idrissa Seck mi fa nekk léegi ba ci moom mi nga xam ne nekk na fa ñu xool auditer leen ba xam kan moo luubal est-ce que euh, réponse bu bu suffisante la aujourd'hui ci li nga xam ne moom la Aminata Touré joxe euh, Abdoulaye Mbow ah, rapport cour des fois andi ay jiixi jaaxa si anam gi ak euh, façon gi euh, ba nga xam ne souvent euh, dëgg la naam seen liggéey la ñuy def te liggéey la boo xam ne liggéey boo am solo la mais très souvent on se pose des questions je disais la dernière fois ici quand le rapport de la côte des génnoon dama ne il faut éviter toute forme de politisation des rapport des corps de contrôle. Mm-hmm. parce que booy xool rapport yu bari yi épinglé yi ne autorité yi. dañu koy politiser par la suite parce que Abdoulaye Wade bi muy doog a ñëw. Mhm. dafa fekk ay rapport corps de contrôle yu épinglé woon ay anciens ministres sous le régime socialiste bu ñëwee gis nga am na ñu bari bërëb bërëb jël leen yóbbu leen kaso mais quand ils ont accepté de transhumer da ngay gis ne dañu leen libéré ci saa si euh, rapport IGE bi ko épinglé woon Idrissa Seck dans le cadre des de Thiès da ngay gis ni ba muy nekk prison. lañ doon waxtaan pour xool naka la ñuy déggoo à travers le fameux protocole de Rebeuss pour mën a euh, andiwaat ay anam yoo xam ne déggoo la si langue politique bi donc il faut quand même que l'on puisse éviter euh, la politisation des rapports parce que politisation des rapport dafay décrédibiliser. Mmh. dafay désacraliser. li nga mmh. xam ni mooy institution yi nga xam ñoom la ñu dénk ñu war a saytu. Euh, doxalin ak ak euh, am-am wa illaa luubal bi nga xam ne constaté nañ ko dans des structures de l'État moo xam ministère la moo xam autre démembrement de l'État de ce point de vue je ne dirais pas que le rapport dont on parle est un faux rapport mm-hmm. cependant il faut éviter la politisation et aller dans mais, le sens mais parce que également ñoom ci la ñuy ngoy jàpp ne euh, dañuy politiser ces rapport sont utiliser à des fins politiques ñu ngoy ci loolu au lieu que ñu indi leer ci li nga xam ne moom lañu ñu leen moom laa doon wax leeral gi moo di mhm. xam nga tey ji ni ministre de la république bu fekkee ne moom mooy toog ak yow euh, lañ la dénk nu mu fooree devant seize millions de sénégalais ñu tànn si lu mat fanweer wala euh, juróom fukk loo xam ne ni dañu leen yow la ñu tabb ministre par décret te ëppoo fi jàng ëppoo fi xam-xam ëppoo fi jaar-jaar yow nga sañ-sañ taxaw rapport génn nga rapport bii génn en réalité ay politiciens encagoulés ñoo ko def. Mm-hmm. tu parles de ces juges de la cour des comptes alors que toi tu es ministre de la république donc désacralisation bi fa la commencé par rapport ak kii nga xam ne c'est un démembrement de la première institution parce que c'est le président de la république moo jiite li nga xam ni moo gouvernement bi parce que moom moo koy nommé donc de ce point de vue là il faut quand même ñu bàyyi loolu nga gis ministre boo xam ne ay euh, ay enquêteurs jóge ci kuréel yooyu dañoo ñëw sa bureau nga dàq leen. ah comme des malpropres. Mhm. defe naa ne yow tu participes à désacraliser li nga xam ne moo di corps de contrôle yi maintenant ce que Mimi Touré a proposé je pense que c' est un défi qu'elle a lancé également aux autorités. Mhm. jëm si li nga xam ne mooy la contradiction par rapport justement au contenu. et aux accusations contenues si li nga xam ne moo di rapport bi nga xam ne génn. dafay jàpp est-ce qu'on a besoin de défi cest dire qu'aujourd'hui yow la ñu tudd Abdoulaye Mbow. nga ne du du man euh, du man kese waxul noonu man peut-être man. maa ko du man kese bokk ma ci moom. non effectivement non je dis non je ne dis pas euh, que a dit parce que dama ne lancer le défi. ko interpréter noonu ko interpréter noonu. moom si wàllu boppam comme ni mu ko waxee yoon na ay documents. yi nga xam ne tey jii bu ñu defoon euh, ndaje boo xam ne askan wi ak enquêteurs yi ñooy toog ak société civile bi ñëpp ñu daal di euh, jibal euh, euh, dossiers yi mu yor waaye dossiers yooyu mu yor moom na si sukkandiku pour gindi askan wi wax leen ni wan leen ni lañ may tuumal dara amu ci def naa ni loolu c'est un premier pas c'est une première démarche je dis encore une fois il faut quand même que l'on avancer par rapport ak li xamoon di continuer rapport yow da nga ni ngi boobu la wax rapport Cour des comptes mais et le rapport de l'autorité ARMP. ARMP. Qui a épinglé des maires de l'opposition oui, effectivement. Et du pouvoir. Et justement, et la délégation à l'entrepreneuriat rapide des, des, femmes et des jeunes sous, sous, qui, la direction de Pape Amadou Qui parle de secret de défense. Alors que DER, dama xamul lan moo de secret défense. DER, direction boo xam ne amul cellule de marché, de passation des marchés publics. DER boo xam ne da ngay gis ne console boo xam ne mi ngi jar xawma quatre cent mille francs ñu surfacture ko ba xawma ñaata millions des dizaines de millions ak yeneen luux-luux mais on n'en parle pas parce que réalité on oublie très vite parce que am na loo xam ne lu bees la je dis encore une fois les rapports là nañu fexe ba nga xam ne dañ koy jébbal ki nga ko war a jébbal kañ ko jébbal nag def les enquêtes li nga xam ne moo si war a topp pour ñu xool effectivement ndax xam yow lu ñu lay tuumal am na parce que tu as des dossiers yoo xam ne wóor na la ni luubal nga wala luubaloo wala leer na wala leeru nga brandir ko wan ko ba pare wan ko askan wi tam was askan wi war a am man jugement jugement boo xam ne dafay jëm si yow ngir wax ni la nga wax dégg nañ ko te jàpp nañu dëgg la wa ilaa ñu ne li nga wax ni dégg nañ ko waaye jàpp nañu du dëgg donc de ce point amul amul laam-laamee da ngay xool rapport yi génn rapport yëpp yow tey day IGE dañoo tëb rapport 1 rapport 2 rapport 3 rapport 4 dem ba si rapport 5 ne ah rapport 5 de duñ ko tëb lu sax parce que dafa concerner benn opposant te rapport boobu waxul woon opposant bi nañ ko poursuivre à la devant la justice parce que rapport bi am na loo xam ne rafetlu na ko si liggéeyam ba pare ne lii de war nañ ko réformer mu di caisse d'avance bi te pourtant rapport bu dañ ko yóbbu kanamu yoon ba pare condamné nit ki jugé ko condamné ko ba pare déchoir ko de ses mandats de député et de maire donc de ce point de vue là il faut quand même lii nga xam mooy suñu alal Fat Abdou yow da ngay cotiser kii day cotiser keneen day cotiser parce que am na ñu lay dagg loolu la ñuy dajale ak leneen fu ñu koy jëlijee jox ko njiitu réew mi mu tasaare ko si ministère yi ak budget ñu voté ko assemblée nationale donc loolu si mënti am dërëm bu mu si mënti doon war nañ ko topp ba leer ñu xam ndaxam dëgg la ndaxam du dëgg te encore que rapport Cour bi génn na jëm si Covid bi jëm si ministère yi waaye Cour des comptes tamit ñi ngi xaar mu génnewaat beneen rapport feeg si kanam jëm si li nga xam ni moo doon gestion des collectivités territoriales durant la pandémie la même pandémie parce que itam foofu tamit li nga xam moo di passation de marché yi am na loo xam ne teggil la nañ ko comme contrainte donc de ce point de vue là il faudra quand même que l'on faire euh, euh, ni ñu koy waxee jouer balle à terre et jouer balle dul permettre à la justice de mener les enquêtes idoine, objectif et pertinente pour situer la, les responsabilités, blanchir si c'est le cas et inculper si véritablement on a constaté que la nga def euh, jaarut yoon. jëm ci utilisation alalu askan wi. bi bi Paa moom tegum amul benn terrorisme intellectuel wax nga ba jeex waaw wala déet. non je ne parle pas de terrorisme intellectuel <laughs> mais toi tu tu tu fais du terrorisme de position. <laughs> yow tu fais du terrorisme d'opposition <laughs> voilà. Euh, euh, euh, aujourd'hui le rapport de l'IGE euh, euh, faw le président de la République la ñu koy jox moom bokkul ak rapport Cour des comptes bi nga xam ne c'est rendu public donc bu ñu ko joxee le président de la République faw moom mu déclassifier ko ngir askan wi mën ci jot est-ce que c'est pas fait exprès wala ñu ànd ak Aminata Touré ni ñu ko waxee jàpp ne complot la encore politique bu ñu bëgg a teg ci moom parce qu'elle s'oppose et a tourné définitivement des dossiers sous le coude, des dossiers sous la table et des dossiers sur la table soo ànd ak sama grand sa dossier day teg sous le coude bis boo àndul moom sa dossier da koy teg sur la table et aussi c'est l'histoire euh, de la traqueuse traquée l'histoire de la traqueuse traquée euh, je rappelle que Mimi Touré elle s'était illustrée par la traque des biens mal acquis. Qu'aujourd'hui, elle est traquée. Njaay nee na du man du man kese bokkuma si moo ko gën. Mhm. mais nag d'une part aussi elle a raison parce que bu ñuy wax institution bi moi j'ai toujours dit que ànduma ci conseil économique et social et environnemental mosuma si ànd parce que j'ai toujours conseil man sama postulat du ma ko changé par principe. pour man c'était euh, une une case à, à caser de la clientèle politique wala un bonbon à donner à des gens pour qu'ils ne soient pas frustrés amul leneen ab tàngal la yaa de dégg ñu jox la budget def institution nañ ma wax ban impact le conseil économique et social am ci ci sénégalais yi ñun nañ ma wax au conseil des collectivités territoriales ban njëriñ la am c'est pour gérer une clientèle politique Mimi jamono boobu dañ ko doon gérer xam nga defoon nañ ko fii envoyé spécial créé benn poste nii envoyé spécial après ñu jox ko tu te rappelles bi muy def passation de service ak Idrissa Seck c'était un peu acerbe on on s'attendait même pas Mimi dafa génn rek taaxle. waaw c'était compliqué. là Mimi man je considère que mère ngemb la parce que là Mimi bi ma gis mu sol ay daalu plastique def des milliers de kilomètres. bu ñu ko joxoon présidence assemblée mu rangé wu mais depuis qu'elle a commencé à se radicaliser changer discours am commencé attaquer gars yi manifestation opposition Mimi wàcc accolade Guy Marius Sagna eh bien elle devrait s'attendre à que nga war a xam ni boo fekkee xam nga Macky Sall mooy koo xam ni en termes d'adversité il est intraitable en termes d'adversité amu ci sentiment Macky mooy koo xamante ni yërëmul yërëmtaluwul gis na ni nga ko gisee noonu neex sedd rey la ni mu ne nemm noonu nii nii du wax li muy def lay def et loolu nag moo dangereux Abdoulaye Mbow wax nga dëgg suñu ay institution ñu ko désacraliser mais Abdoulaye Mbow IGE euh, am na benn journal tey bu ma gis mu mu titré lan la bind sax mu ne IGE bi dafay dem ba nekk benn ngànnaay contre euh, des dissidents ou des opposants Idrissa Seck pour le mettre en prison sur les chantiers de Thiès on a utilisé rapport IGE Khalifa Sall rapport IGE rapport boo xam ni dafa joxe ay recommandations ne maanaam ci wàllu administration ci wàllu tëralin ci liggéey bi nii lañ ko war a defee. mais ñu utiliser rapport boobu rëq ndiggam kon nag boo gisee IGE fa mu jaar ak gars yi yow nga ne déclaré nga sa candidature ñu bugg ko teg sur la table Eh, ay la yéwén foog nga jóg foog nga yuuxu foog nga wax kon nag fu ñu càmbaree Mimi Touré balaa ñuy càmbar Mimi Touré am na ko fa jiitu Mimi Touré wala amul. Hmm. Aminata Tall neew fa. la moo tax waxuñu wax Aminata Tall wax na dëgg Idrissa Seck mu ngi fa nii war nañ ñu wax ñun. Euh, ci wàllu doxalin ak budget bi nga xam ne moom lañ leen jox mais malheureusement euh, conseil économique social dañ fa dañ la fa jox benn kopparu xaalis pour nga koy politiquer. Mm-hmm. et tey loolu mooy li xam ne mooy Machiavelli mais par contre pour man euh, Mimi Touré aussi war na xoolaat boppam de. Mm-hmm. moo fi doon traqué waate de. tey. ñu koy traqué lii mooy àdduna. gis nga àdduna nii la da ngay nekk ci benn posture yow yaa reet bi di ko dóore jamono dina dox. yat bi ñu dóorloo euh, dama lay jox exemple Ousmane Ngom bi mu nekk ministre de l' intérieur. il faut toujours être juste dans l' intérieur. Hmm. c' est le même Ousmane Ngom bi nekkoon ministre de l' yore police yu Sénégal yëpp keroog bi ñu koy jëli Kolda dañ koo taxañ ñi mu doon seefe ñoo ko taxañ dem jëli ko moo tax nit ki cër boo mën a am posture boo mën a am na nga ci taxaw ak principe na nga ci taxaw ak dëggu ba ëllëg nga am ci woy wu rafet. c'est clair parce que tey nguur gi nga yore Macky Sall mii di jàpp di tëjaate nii. ay procureur di tëjaate nii ñi nekk ci nguur tey ñi nekk tey ñi doon tëj ci kaso bi tey ñoom ñoo nekkoon ci nguur mhm. àdduna dafay wëlbatiku moo tax mhm. am na loo xam ne wëlbatiku mooy principe malheureusement nag suñu góomu robaale la euh, man su may wax ci rapport damay am cardiaque sax mhm. parce que Cour des dama ko lire leen laa ko résumé restez yéen waa Sen TV ngeen bindal ñu restez chez vous nekkate ñoom ñoom ñoo ne ñu restez chez vous on vous vole euh, maire ba rek xoola tuuti rek foofu maire ba nekk sama koñ ji jaay cere cereem rek la am mooy suturaam mooy teraangaam ci lay fayal njabootam ci lay def lépp du ma tudd turam maire bi boo demee këram sax boroom këram day jaay cere ji si biir këram njabootam yëpp ci loolu lañu yaakaar nga ñëw na ko da ngay wàcc dix huit heures tey nga ne ko dix neuf heures wut ay yat duñu ñu ko dóor ndekete ñu ngi ñuy round quoi round bu siluissé et je le dis ah ministre bu fi tojee da nga ànd ak sa dage et malheureusement loolu la ñuy wax suñu administration bi lii amee ni impunité bi nekk ci kenn du àtte kenn lii rek dafa war a wane ni corruption ak mal gouvernance góomu robaale la ci Sénégal. lii rek moo am. Ah, ñàkk baadoo la ñuy dundee si ngàcc nañ ñu bañ jeex. c'est clair Cheikh Oumar Talla est-ce que mën nañu ko rek teg ci euh, euh, pour des fin politique moom moo tax ñu bëgg ko faagaagal wala dañu koy teg ne IGE def ko. dañu ko tudd ci épinglé ci lu toll ci deux milliards boo xamante ne euh, ci bi mu yoree conseil économique social environnemental que mbir yi dafa war a leer aujourd'hui comme ni ñu réclamé li nga xam ne moom mooy lu leer ci rapport Cour des comptes. mais xam nga Fatou Fatou Fatou actuellement Sénégal yëpp xam ne langue politique Sénégal fu mu toll nii nii nii vraiment euh, elle dégage une mauvaise image. la politique sénégalaise dégage une mauvaise image actuellement c'est-à-dire si biir ñoom seen biir ñi ngi euh, werante ñi ngi xasante ñi ngi li nga xamante mooy gaariwaale waaye aussi ku nekk yaa ngi sulli say mbóotu moroom c'est-à-dire question de gentleman boobu Cheikh Oumar Tall di faral di wax fi mu tudd amul amatu fi si politiciens yi ils ne sont pas des gentlemen xamuñu ko sax dañ koy dégg rek mais ñoom ñëpp ñu ngi xasante te li ko waykat bi waxoon mi ngi ñaaw mi ngi ñoom seen biir te day gën a nga mooy leen mooy fi mu tudd loo xam si sa moroom si politiciens yaa ngi te nag soo amul argument. soo amul argument loolu sama xarit bee ko wax loolu la wax loolu la wax. ñaaw na ba euh, noonu waaw dafa nekk te day gën a ñaaw nag te day gën a ñaaw dama ne non non man damay analyser dama ne te day gën a ñaaw nga muy gën a ñaaw mooy gis nga nañ demal kanam si kanam tuuti di nga yeneen yoo xamante ne gars yi ñu koy génnewaat sulli mbóot sulli mbóot yoo xamante ne yow fi mu toll politicien boo si amanteel koo xamante benn bis bi bu ndaw benn jafe-jafe bu ndaw xaaral na parce que bëggantewuñu parce que ñoom ñëpp dañoo jàpp ne fi ay ennemi lañ waxuma dañuy gën a fi mu toll xasante parce que ku nekk yaa ngi bëgg yàq sa morom si kanamu sénégalais te c'est dommage te Fatou yaa ngi fàttaliku ba man toog fii dina wax ne la gis nga bu ñu bàyyi rapport yii Sénégal bi bu réew mi di tàkk si ay rapport lañu tàkkee. Ah, war nañoo rapport yi Ka Mouhamed Bay affaire mais mais mais rapport yi dafa war a leer. waaw mais rapport yi moo tax ma naan bu ñu bàyyi rapport yi moom la moom la ma bu ñu bàyyi rapport ñoom ñëpp dañuy sànq xam nga ku ñu sànq <laughs> xam nga li mi mu laajte dafa maa neex lool dafa ne nañ def audit nañ def audit. Mhm. wax ma la moom ñu def audit fa mu waxee de ma ne conseil économique social et environnemental HCT aussi un conseil. des collectivités territoriales yoo xam ce sont des zones de recasement yoo xamante ne dañ naan la dugal mëqalte na muut. dëgg la bu fi seet nekk li jëm a expliqué da naan la dugal mëqalte na muut gis nga bu ñu fa dugalee xoolal la fay xew boo ko gëstu ba si biir nga xamante ne ñii réellement. li nga doon wax sànq ne Macky daan nemm soft power di def li muy def ñoom aussi. xam nga mais mais est-ce que dañ ko tudd est est-ce que parce que dañ ko tudd tout simplement pour deux milliards que nag da taxaw yow. nangu gëm ne dafa demoon foofu pour pour lekk. aussi au-delà de. est-ce que teelul. ci précipité man xam lu ma gëm man xam lu ma si Sénégal boo yeewoo di xool liy xew si ñoom seen biir ñu xasante bi ma la wax sànq si ngay comprendre ndekete lii moo tax ñun ñu sous pour ñu sous développement. Bamba doom may benn phrase. allez bu li nga ko laaj nii léegi léegi. Euh, c'est-à-dire image bi ma am man da nekk ci mbir mi di noos ànd ak Macky di noos di noos di noos jour bu roccee sa tàngal bi mu la joxoon nga wëlbatiku changé posture loolu moo fi am. amul leneen amul leneen. Mimi amul ban poste ban cër la ko. la am mais mais même ah, est-ce que oh, loolu oh. dafa war a tax. ñu lay ñu lay wutal ay pou maanaam parce que nekkatoo fa changé nga posture. te dañu war a loqati léegi dama lay wax mooy kan. ku ànd ak moom amal bul am sax pou amal ay mbóot bu la nee sa amal ay onk déranger wu ko mais bis boo àndul ak moom mu jël lool loolu c'est c'est c'est du machiavélisme loolu c'est du Macky pur mais par contre mais li ñu tàmmal ñun di ñu ko won da ngay ànd ak Abdoulaye Mbow ngeen nguuru ngeen noos fine ba jour bi ngeen tàggali ko tey vingt quatre heures nga xëy mu mel ni mosoo ànd ak léegi bëgg mooy au delà mm-hmm. euh, euh, si ñoom seen rivalité politique yi mais li mu wax si fee bi nañ si taxaw mm-hmm. mooy est-ce que réellement bu moo set xam nga boo yeew saa di déglu presse bi di topp li nga mooy politiciens ñu demee xam nga la ngay comprendre mooy pourquoi le Sénégal est un pays sous-développé pourquoi on est dans la pauvreté ndekete yow parce que ñun on a du mal à choisir nos leaders ñi ñuy ñoom ñëpp ku si nekk si ñoom yaa ngi jéem def chaque jour nooy def ba ba dugal gafa ga su nga xamante mooy xaalis réew mi si sa poche ab Fatou Abdou nañu waxtaan honnêtement ban Sénégal ban métier ban salaire moo fi mën a jox Sénégalais en peu de temps nga nekk que tu sois milliardaire. Ah, ban salaire moo mën a may en peu de temps tu sois milliardaire dañu ma wax ban salaire la amul fi xam nga problème bi mooy boo audité ci nga xam ne ñoom ñëpp. ñoom ñëpp dañ doon téye askanu xaalis Sénégal askanu Sénégal di leen pam di pam di leen chaque muy dem di retirer cent millions c'est du n'importe quoi te li gën a grave li gën a grave mooy man dama ne dama ne au delà de ça na ngalawaay ban Ablaye damay laajte ba xam xam nga cour des comptes la xam nga IGE ban cour ban institution moo ñu mën a defal audit général de toute la nation sénégalaise mu koy waxee ni audit général de toute la nation sénégalaise commençant du chef de l'État jusqu'aux collectivités territoriales yaa ngi wax waxi li nga xam ministère yi yaa ngi wax li nga xamante ne mooy euh, wàllum euh, assemblée bi yaa ngi wax institution demal si maire yi. mais ku demal si maire yi maire yi. waaw ma ne demal si maire yi Fatou que xam nga ne maire yu bëri ñàkk nañ seen maire parce que tout sama askan bi nekk si ñoom ñoo gëm ne dañoo lekk xaalisu dëkk bi ñun xam ne ñoo xam ne xam na ñu jaay am na ay maire yoo xam ne xam nga politicien la ñu jaay pour nekk maire que suñ ma soo ma falee dinaa auditer li nga xamante ne mooy seen gestion maire yi ñu falee boo jëlee yëmbal par exemple ka fa nekk muy Babacar Ndaw yëmbal Nord si programme daf ñoo jaay nañu fal leen ma mhm. ma def audit si li nga xamante ne mooy si Daouda Ndiaye si mhm. nekkoon ba tey jii nii ba sànq ba bëccëg mhm. Babacar Ndao waxoo si dara alors doo demee si mairie yëpp mairie yëpp mairie yi génn bu ñu audité ñoom ñëpp si lañ très bien Bamba dañuy brosser parce que aujourd'hui c'est jeudi dañuy teel a terminé dañuy brosser un peu cette manifestation bi waroon am suba